ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha. mi fi Serigne mi nga xam ne moo fi Serigne Touba. di ñaan mu yàgg fi lool yàgg fi lool ci ànd ak wér. mu jottali mu di leen fas yéenee jottali kàddu yu bàyyi ko ci moom. muy kàdd yu yiw. dalal leen jàmm ci dëkk bi. leen jàmm ci dëkk bi. di yóbbante am nuyoo. di ci seen kilifa yi leen fi yabal. ci seen kilifa yi leen fi yabal. di Serigne Mbaye Thiam. di Serigne Mbaye Thiam. mi nga xam ne moo gi nga xam ne moo ko jox ndigal. président Macky Sall. la république Macky Sall. di leen nuyu ci turu sëriñ di leen nuyu ci turu sëriñ bi. di nuyu yéen ñi nga xam ne yéen di leen nuyu yéen ñi nga xam ne yéen la yabal ci jataay bii. tàmbalee ko ci Sidibé. tàmbalee ko ci Sidibé. moom mi nga xam ne moo jiite wàllu inondation. moom mi nga xam ne moo jiite wàllu di ci teg Laasana Diagne Sakho. di ñi nga xam ne wàllu assainissement bi moo ko yor. ñi nga xam ne moo yor wàllu assainissement. di nuyu seen i ndaw mi nga xam moo yor wàllu ndox mi. di nuyu itam seen i ndaw mi yor wàllu ndox mi. kon muy euh, fànn gu am solo ci dëkk bi. muy fànn gu am solo ci dëkk bi. rawatina ci waxtu wi. rawatina ci waxtu wi. di nuyu sëriñ Abdoul Ahad Ka mi nga xam ne mooy jiite commune bi. di nuyu sëriñ Abdoul Ahad Ka mi nga xam ne moo jiite commune bi. ca dalal leen fi. ca dalal leen fi. ci turu sëriñ bi ci turu sëriñ bi. député Abdoul Ahad Seck. di nuyu itam député Abdoul Ahad Seck. ak mboolem ñi fi teew ñëpp. ak mboolem ñi fi teew ñëpp. di eh, dégg nañ kàddu yi bu baax a baax. dégg nañ kàddu yi bu baax a baax. ndax eh, yàlla dafa def. ndax yàlla dafa def. Eh, bi màggal gi jàllee. bi màggal gi jàllee. ba weeru gàmm gi jeex. ba weeru gàmm gi jeex. ci rek sëriñ bi yónni woon. ci la ko sëriñ bi yónni woon. ci président. muy lu jëm ci wàllum ndox mi. muy lu jëm ci wàllum ndox mi. ak wàllu assainissement bi. ak wàllu assainissement bi. mu xamal ma ne ndox mi. mu xamal ko ne ko ndox mi. budul woon ak université bi. budul woon ak université bi. mooy sama yitte yi jiitu. mooy sama yitte yi jiitu. kon damay woo taalibe Serigne Touba yëpp. kon damay woo taalibe Serigne Touba yëpp. ànd kook ñoom. ànd koog ñoom. ñu def ko ñu def ko ba dëkk bi. am ndox mu neex. am ndox mu neex. dootu manqué te dootu manqué. waaye nag comme léegi yitte ju rëy. waaye léegi comme léegi ay yitte yitte ju rëy. yoo xam ne neexut a boole. yoo a boole. moo tax xamalal ma ko. moo tax xamalal ma ko ne. yitteel na ma. yitteel na te màggal gii ñu jëm. ca màggal gii ñu jëm. gii weesu ndox mi dafa manqué woon. gii weesu ndox mi dafa manqué woon. waxoon na ne fas na ci yéene jëf. ca waxoon na ne fas yéene cee jëf. wàllug assainissement bi itam. bi it. daaw. bi màggal gi dugg si. bi màggal gi di dugg si. ci CRD waxoon na ko. ci CRD waxoon na ko. ne leen màggal yi ñu jëm yëpp. ne leen màggal yi ñu jëm yëpp. ci biir ndox lay nekk. ci biirum ndox lay doon. kon loolu daanaka mooy li agsi ren. kon mooy daanaka li nga xam ne moo agsi ren. moom itam mu digg ci. moom itam mu bëgg ci. mu digg ci. mu digg ci. wax wax ma lan ci nar. wax ko la nga xam ne moom la ci nar. mooy li siini leeral léegi. mooy li nga xam ne moom la siini leeral léegi. mooy forage yi nga xam ne yu bees la. mooy forage yu bees yi. surtout quartier yooyu nga xam ne. surtout quartier yooyu nga xam ne. dafa manqué woon ndox. dafa manqué woon ndox. muy bari na sax ci quartier yëpp la daanaka. nee na bari na sax ci quartier daanaka la. waaye dafa rawante. dañoo rawante. ndax fu mel ne Darou Manane googu mu tudd. fu mel ne Darou Manane googu ñu tudd. waxoon naa leen ko daaw. waxoon na leen ko daaw. nee mooy fi war a jiitu fi ne. mu ne mooy fi nga xam ne moo war a jiitu fi ne. ndax li tàmbalee Darou Manane. ndax li nga xam ne moo tàmbalee Darou Manane. jaar xayira. jaar xayira. dem ba da ba Madiana. dem ba Madiana. foofu mooy fi gën a métti moom. mooy fi nga xam ne ñoo gën a sonn ci ndox. donte quartier bari la donte nag quartier yëpp ba ba ci seen quartier yi sax yëpp ci la bokk. fii ñu dëkke màggal gi daaw am nañ lu mat fukki fan amuñu ndox. màggal gi daaw am nañ lu mat fukki fan ci amuñu ndox. waaye nag fee moo gën a métti. waaye côté bee mu wax nag moo gën a métti. Euh, kon mooy lii ngeen tàmbali. mooy kon nag lii ngeen tàmbali. mu teg cee ne. mu teg cee ne. damaa bëgg def benn euh, étude bu mag. dama bëgg a def benn étude bu mag. pour euh, réseau bi nga xam daa am jafe li pour li nga xam ne mooy réseau bi nga xam dafee ne ci amee jafe-jafe. ndax gis nañ ne. ndax gis nañ ne. yokk-yokk nu yokk-yokk forage yi. te te euh, te te duñ yokk forage yi. duñ yokk forage yi. Euh, te réseau bi baaxut. te réseau bi nag baaxut. du am njëriñ. am njëriñ. te sëriñ bi itam. te sëriñ bi itam. ku sañoon kuy màggal si ku ne. ku sañoon kuy màggal si ku ne. doo fi dikk ak tumuranke. doo fi dikk ak tumuranke. waaye màggal si ba noppi. waaye màggal si ba noppi. doo am loo lekk. doo am loo lekk. ndax eh, ndox mi mooy togg. ndax ndox mi moom mooy togg. doo am loo naan. doo am loo naan. boo bëggee jàpp. boo bëggee jàpp. wala nga bëgg sangu it mu wala nga bëggee sangu it mu jafe la. loolu moom diis na ci sëriñ bi. loolu moom dafa diis ci sëriñ bi. moo tax étude bi nga wax. moo tax étude bii nga wax. loolu mooy liy régler lépp. loolu mooy li nga xam ne mooy régler lépp ba mu baax. ba mu baax. kon nag ñu ngi leen ci comme agsi na foofu. comme nag agsi na foofu. sori na sori na. kon ñu ngi koy xaar ba mu àgg ak jàmm. kon ñu ngi koy xaar ba mu àgg ak jàmm. Euh, wàllug assainissement bi itam. wàllug assainissement bi itam. moo po waxoon ne dana ci def ñaar fukki milliards ren. waxoon na dana ci def ñaar fukki milliards. ren ren. ba yaakaar naa jàlloon na assemblée bu ma juumut. boobu yaakaar na ne bu ma juumut jàlloon na. bu juumut jàlloon na assemblée. Euh, ci biir loolu nag. ci biir loolu nag. di nawet bi sësaatee nii. di nawet bi sësaatee nii. sëriñ bi yónni ma ci moom. sëriñ bi dellu ko yónni ci moom. ma fàttali ko yooyu. mu fàttaliwaat ko yooyu. ak yeneen yi ñu war a def ci dëkk bi. ak yeneen ñu war a def ci dëkk bi. Euh, ci li ci concerne ministère bi nag. li ci concerne ministère bi nag. président joxaat ko ndigal laaj ko fu ñu toll. jox président joxaat ko ndigal laaj ko fu ñu toll. mu leeral lii. mu leeral lii. ci la ko jox ndigal. ci la ko joxe ndigal. nekkoon nañ dem Touba vérifier. nekkoon nañ dem Touba vérifier. xool yi gën a jàmp. ak xool yi nga xam ne ñoo gën a jàmp. mooy lii nga xam ne moom ni la ko saax waxee léegi. xamal na ma ne. ministre bi it xamal na ko ne. ñaar fukki milliards yi ñu programme woon. ñaar fukki milliards yi ñu programme woon. bàyyiwuñ bàyyiwuñ ko. waaye xam ngeen ni réew mi demee. waaye xam ngeen ni réew mi demee. li xew ci àdduna ak li xew ci àdduna si. moo tax mu am tardement. programme bi benn. ci programme bi di benn. boo xam ne na sax yaakaar naa ba jege téeméeri milliards lépp. boo loo xam ne yaakaar na ne dem na ba jege téeméeri milliards. waaye ñaar fukki milliards yi mooy li si gën a jàmp. waaye ñaar fukki milliards yi mooy li nga xam ne moo gën a jàmp. mu nekk benn benn benn programme. mu nekk benn programme. kon loolu. kon loolu. ñu ngi koy rafet lu baax. ñu ngi koy rafetlu bu baax. di soññ it gaañu saako li mu lim léegi. di soññ it gaañu saako lii nga xam ne lim na ko léegi. ci assainissement OIC bi. ci assainissement bi. ndax yàlla def na. ndax yàlla def na. Euh, bi ma xalaat. bi nga xam ne njëkk naa koo xalaat. boobu Cheikh Sidi Moukhtar moo fi nekk. boobu Cheikh Sidi Moukhtar moo fi nekk. biñ ci waxtaanee. biñ ci waxtaanee. boobu ministre Mansour Faye moo yor loolu. boobu ministère ministre Mansour fay moo yor loolu. wax ci. ñu wax ci. ndax booba la doon illa ji dëgg-dëgg. ndax booba la doonoon illa ji dëgg-dëgg. mooy jumaa ji nga xam ne. mooy jumaa ji nga xam ne. amut ay wanag. amut ay wanag. te ma yëg ci waa kër Sëñ Tuubaa. te mu yëg ci waa kër Sëñ Tuubaa. bëgguñu woon ay foos ne ci biir woon ay foos ne ci biir jumaa ji. Eh, ci lañ architecte yi bi ñu xoolee. architecte yi bi ñu xoolee. ba xool ne faaw foos yi eh, fu jege yomb fi. ba ñu xoolee ne faaw foo xam ne jege na pour def fos yomb yomb fi ci la ñu xalaatal loolu. ci la ñu xalaatal loolu. ci laa jëloon dossier bi. waxtaan ci ak Mansour Faye. mu wax ma ne incha allah. mu wax ma ne incha allah. sama projet bopp. sama projet bopp. danaa ci waxtaan ak président. danaa ci waxtaan ak président. dinaa ko topp ba mu sotti. ba mu noppi ko topp ba mu noppi. ba mu sotti ba mu sotti. kon nag yàlla def na. kon nag yàlla def na. agsi na fii na fii. kon fekke wu ko. kon fekke wu ko. waaye ñu ngi ko ci gërëm bu baax. waaye ci lool. ñu signé ko ba liggéey bi tàmbali. bañ signé ko ba liggéey bi tàmbali. waaye it eh, Sakho danaa am tuuti lu ma la fàttali. waaye Sakho danaa am tuuti lu ma la fàttali. mooy Touba. mooy Touba. dëkkub Serigne Touba la. dëkkub Serigne Touba la. lu ngeen fii def sëriñ bi ngeen koy defal. lu ngeen fii def sëriñ bi rek ngeen koy defal. waaye sëriñ bi leen koy defal itam. waaye sëriñ bi li ngeen koy defal it. taalib yi koy jëriñoo. taalib yi ñoo koy jëriñoo. ndax lu mu ci doon rek sëriñ bi koy jëriñ sëriñ bi ci gën a néew la. ndax lu mu ci mën a doon rek sëriñ bi ci gën a néew la. ndax bu ñuy wax bu ñuy wax dëkk bi. ndax bu ñuy wax dëkk bi. taalib yi tax ñuy wax. taalib yi ñoo tax. kon liñ leen di defal. kon liñ leen di defal. muy àgg ci ñoom. muy àgg ci ñoom. waaye itam. waaye itam. am na ci loo xam ne. am na ci loo xam ne. mën naa gën a bàyyi xel. mat naa gën a bàyyi xel. ndax kuy booy jëflanteeg nit. ndax booy jëflanteeg nit. ak wegeel da caa baax. ak wegeel da caa baax. ndax mënoo ñëw cib dëkk. ndax mënoo ñëw ci dëkk. fa projet bu toll noonu. projet bu toll noonu. te dëkk ci dëkk ba xamuñu sax projet bi nu mu demee. ba ca nga xam ne ña dëkk ci dëkk bi sax xamuñu projet ba nu mu demee. man mii di wax ak yéen. man mii di wax ak yéen. tanewuma leen ci. tanewuma leen ci. maa ko lijjanti woon. ca maa ko lijjanti woon. Abdoulahat Ka mii xamu ci dara. Abdoulahat Ka mii xamu ci dara. sëriñ bi nga xam ne maa ko war a leeral. sëriñ bi nga xam ne maa ko war a leeral. yéen ko yéen a yéen ko ci tane. asama population bi ci dëkk bi. asama population bi ci dëkk bi. kon loolu dimbalewul bi ngeen di jëfal. ndax loolu kon dimbalewut président bi ngeen di jëfal. ndax nit boo koy dimbale. ndax nit boo koy dimbale. la nga koy jëfal daa war a leer ci ña koy jëfal. la nga koy jëfal dafa war leer ci ña ngi koy jëfal. ñun ñun ñi nekk ci kanam. ndax ñun ñi nekk ci kanam. leerut ci ñun bay leer ci taalibe yi ne ci dëkk bi. leerut ci ñun bay leer ci taalibe yi ne ci dëkk bi. te dëkk bi itam. ca dëkk bi itam. dafa am nu mu bindoo. fépp fépp féppay farata. féppay farata. waaye priorité bi. waaye priorité bi mooy tàmbale ci jumaa ji di wër. mooy tàmbale ci jumaa ji di wër. quartier yëpp tolloo. kàlli quartier yëpp tolloo. ñëpp yam ci. ñëpp yam waaye fi mu toll nii. waaye fi mu toll nii. boo jokkatee fii. jokkat fee jokkat fee. te ñi ngay defal xamuñ ñi ngay defal xamuñ li ñeen leen defal. sax ak defar. mën ngaa andi ak defar. te fekk li nga defar nga doon defar ak yàq lay mujj. woo ko moom mi ay yoon. nee na man mi woo naa lay yoon. boo gisee ma leeral ko. boo gisee ma leeral ko. laaj naa ko ci ëpp ñetti laaj naa ko ci lu ëpp ñetti yoon. waaye bu ma ko laajee du ma tontu dara. waaye bu ma ko laajee. tontu ñëpp xam ko. loolu dama koy wax ñëpp xam ko. ba ci ëpput fukki fan. ba ci ëpput fukki fan. mu ne ma dinaa la woowaat waaye tontuwaatuma. mu ne ma la woowaat waaye tontuwaatuma. kon maa ngi ci yem. kon maa ngi yéene ci yem. daa ñu koy def. yooyu nag daa bëri yu ñu koy def. te loolu euh, dugg wegeel. te loolu dugg wegeel. du dimbale seen kilifa yi. dimbale seen kilifa yi ngeen di liggéeyal. ndax kilifa boo koy jëfal. ndax kilifa boo koy jëfal bu ngeen agsi ci man itam. bu ngeen ci man jaar ci Abdou Lahad Ka. jaar ci Abdou Lahad Ka. ngeen jaar ci député yi. wala ngeen jaar ci député yi wala ña war a xam-xam. wala ña ca war a xam. Ah, loolu daal mën naa bàyyi xel bu ëllëgee. loolu daal naa mën naa bàyyi xel bu ëllëgee. ci liggéey ci liggéey. njàmbat li bëri na ci. njàmbat li bëri na ci. projet yu mel noonu yu bëri ci projet yu mel noonu yu bëri bëri. duñ toog ci rajo bi di wax. ñun nag duñ toog ci rajo bi di wax. ndax euh, kilifa. ndax kilifa. bu fekkee boo waxee moom mu dégg la. boo waxee moom mu dégg la. doo toog ci rajo di ko weer. doo toog ci rajo di ko weer. ndax loolu. ndax loolu. am nañu ko moomut. am na ñu ko moomut. boo gisee ma àggee ko nii itam. boo gisee it ma ko nii. mooy moom mii. mooy moom mii jàmm képp laa seq jàmm rek laa seq ak moom. sama xarita. sama xarita. waaye du ma ànd ci lu dëgg. waaye du ci lu dëgg. lu baax rek laa xam ci moom. lu baax rek nag laa xam ci moom. waaye nag. liggéey sëriñ Tuubaa bi moom. liggéey sëriñ Tuubaa bii nag. fi ma nekk. day yëfi jàmbur. day yëfi jàmbur. kon lu mu ci doon rek. kon lu mu ci doon rek. daa war di leer. daa war di leer. ñu xam nam demee. ñu xam nam demee. ba ñu ko war a leer a ko. ko war a leeral leeral ko. waaye entreprise boo koy defal. waaye entreprise boo koy defal. suñu yoon néew ci. suñu yoon néew ci ndax mosuñ ko lijjanti ci benn projet. ndax mosuñ ko lijjanti ci benn projet. ba xam kum doon. ba xam kum doon. waaye nag la ñuy liggéey moom. waaye la liggéey moom. ndegam ci dëkk bi la jëm. ndegam ci dëkk bi la jëm. ci sëriñ bee tax ñu ko fi def. te sëriñ bee tax. bu ñu leerul ñun bu ñu leerut. nga xam loo ci laaj kenn tëniwu la ci. boo loo xam ne loo ci laaj kenn tëniwu la ci. loolu moom neexut a firi. loolu nag moom neexut a firi. ñu ngi di sant bu baax. ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant bu baax. wasalaamaaleykum wa rahmatullah